فسورة إبراهيم تبقي تذكرا إذا أبى للمولى علي وتفكرا متى دفنوني في تراب تحدثوا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 عين مرتبتها وسرها صلاة تأخذ بها بمجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك العيانية الشهودية كي نترقى في شهود الكمال ذاتي دائما أبدا سرمدا كي نحظى بالمشاهد الذاتية والأفعال الذاتية والأقوال الذاتية والأحوال الذاتية والمعارف الذاتية والجمال الذاتي والجلال الذاتي جصبا في صحوي مع مشاهدة حقيقة حقيقة حقيقة الحقيقة حتى صار الحقائق كلها مجازا بالنسبة إلى مشهدنا يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله ñu ngi sant yàlla di عليه ci yonent di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbolam ñu ñuy déglu fu ñu mënti nekk ci àddina bi tey suñ jotaayi tey bi dañ koy tënk ci ñetti point point bu njëkk bi mooy benn waxu Cheikh Ibrahim muy xalifatullahi fi ardin mooy point bu njëkk bi point bu ñaarel bi moy digënté jëm nit ki ndax moy jëm yàlla ji dañ ko laaj Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ndax meloy nit ki moy qudratu irada ilmu hayat samu kalamul basar mooy meloy yàlla yi wala dafa am différence ndax nit ki ay jëfëm mom moy jëf yàlla yi wala dafa am différence lan moo tax nit nekk xalifa yàlla ak ndax jëmmi nit ki mooy xalifa yàlla wala ruuxu nit ki biiri nit ki mooy xalifa yàlla loolu incha allah bu neexee yàlla jotaay bi ci loolu lañ koy bëgg a tënk mbokk mi nga xam ne tey senegal yëpp daanaka képp kuy suivre euh, internet bi yàlla mën naa dogal waxam mbiram yegg ci ci yow dafa am wax ju rëy ju wax wala wax yu rëy yu mu wax waaye tey mën nañu jël benn wax rek mooy bi mu wax ji wax ne yàlla fii la fekk asamaan ak suuf moom nag nit la koo xam ne dafay wax ba pare bu coow li jógee mu jël wax ja tuumaal ko bàyyi Niass na bàyyee ko wax te loolu dinaa leen ci indi point yu bari xam ngeen ne nen ak cuuj wax na ne bàyyee ko wax te doo gis fenn fu bàyyi di waxee diggante yont bi ak yàlla mu ngi mel ni nen ak cuuj daa leen di leen son bu ngeen koy dégloo ngeen xam ne moom toujours dafay teg Baye Niass ci kanam nit ñi di bëgg nit ñi di dal Cheikh euh, su ko defee wax na ne yàlla fii la fekk asamaan ak suuf bi nga xamee ne loolu amut lay mu ne Baye wax ne xalifa yàlla bi mooy yàlla te xalifa yàlla bi fii la fekk asamaan ak suuf muy tuuma ju rëy nag jum teg ci ndoddu Cheikh tey nag bayti boobu moom lañuy ñu ubbee jotaay bi xalifatullahi fi ardin lizalika man ra'aakum qad ra'a rabbal bariyaati mu nekk bayti boo xam ne waroon na ko rusa sax indi ndax moom wax na ne ku fi gis yàlla ak leneen safara nga jëm kon danañ ko laaj bàyyi Niass fu jëm ndax bayti bi dafa tegtale yàlla tegtale xalifa yàlla bi tegtale suuf si tegtale xalifa yàlla bi ci ñim uutu fi mu uutu yàlla ak ci ñim uutu yàlla ba pare te indi baatu rabal bariyaati mooy borom mbindeef te kon dafa saxal rabbu ba pare saxal albariyat kon bayt la boo xam ne man de su ma nekkoon ci mbooloo mu wax ko dinaa am kersa lool te du bayti bii rek mais daanaka bépp bayti bu ñu woy saadara ba bu dee cent bayti la daanaka ñeent yi rek mooy xaw a tegtale yàlla kese ne fi loolu xaal la te jaam bi bu ci àggee moo koy yëg waaye sax du yàlla kese moo fi nekk waaye moom rek mooy yëg ne yàlla kese fi ne ndax fam ne moo tax ndax dafa absenté ba génn ci mbindeef yi kon moom ci yëg ak yëgam du gis leneen lu dul fam ne moo tax mbokk yi tegtale xalifa yàlla bi tegtale suuf si tegtale xalifa yàlla bi ci ñim uutu fi mu uutu yàlla ak ci ñim uutu yàlla ba pare te indi baatu rabbal bariyaati mooy borom mbindeef te kon dafa saxal rabbu ba pare saxal albariyaat kon bayt la boo xam ne man de su ma nekkoon ci mbooloo mu wax ko dinaa am kersa lool te du bayti bii rek mais daanaka bépp bayti bu ñëwee saadara ba bu dee saa bayti la daanaka ñeent yi rek mooy xaw a tegtale yàlla kese ne fi te loolu xaal la te jaam bu ci àggee moo koy yëg waaye sax du yàlla kese moo fi nekk waaye moom rek mooy yëg ne yàlla kese fi ne ndax fam ne moo tax ndax dafa absenté ba génn ci mbindeef yi kon moom ci yëg ak du gis leneen lu dul fam ne moo tax mbokk yi yàlla wax na ci alquran ne wa huwa aina ma kuntum Cheikh Tiyaan ne yàlla mu ngi ànd ak lepp ci jëmmam bayina na ki ki am mushahada mom du sédé and de nga ahlul mushahada laa yushahiduna ma'iyya yushahiduna zaatu faqat ñom fa tuhjibu an ma'iyya ñi nga xamé dañu ag ci yalla ñom duñ gis yalla ak lenen waye yalla kessé la gis su ko defee jëm yalla jooju ñuy gis mo leen di ir dee nga mbindeef fi su ba dañuy nekk maxjuub ci fi kon su boba nak lañ ci yegg moko waral waaye tegtalu ne yàlla terewut mom yalla mom mu ngi and ak fi waye ci si seenuk feebaluk ñom mëna ñoo gisandor ñaar ànd ak ne nak yalla mu ngi ak ci jëmum léegi xalifatullaahi fii ardin buñ jëlee baatu xalifa xalifa mooy ku représenté baat bi rek doyoon na kii toujours dafa am kum représenté loolu mooy tegte ne ki représenté nekkut kam représenté waaye dañ koo nome mu représenté baatu xalifa dafa saxal yàlla saxal mbindeef ba pare nag mu feeñal ko su baatu xalifa rek dañ naan kan la uutu waaye bu ne xalifatullah ñu xam ne kon kii yàlla la uutu léegi nag fan la uutu yàlla ak fan la nekk moom ak ci ñan la uutu yàlla ak ci lan la uutu yàlla xalifa yàlla bi dafa uutu yàlla ci séddale ay mayam dafa uutu yàlla ci séddale ay mayam moo tax na ana qaasimul maaruuf ana qaasimul maaruuf man maay séddalekat biñ xam égal maay xalifa yàlla bi wallaahu huwa al mu'ti wa huwa al maani yàlla mooy joxe mooy waya al alxaqiqa al muhammadiyya bàyyi na hiya al qasim xaqatu muhammadiya mooy séddale xaqatu muhammadiya nag du mbindeef comme mbindeef yi moo tax moom mënta ñëw positionné wu ci suuf si tax bàyyi na lahaa fil wujudi dafay représente day am xalifa boo xam ne mooy nekk xalifatu xaqiqa al muhammadiya aqatu maamadiya séddale mooy mbiram moom moom it séddale di mbiram loolu nag moom xaqatu maamadiya xalifa boobu daf koy am fii kulli asrin ci jamono bu nekk looloo tax nag jamono tey bi mën naa nekk barab sàngam dëkk fa jamono beneen jamono mu dëkk feneen beneen jamono mu dëkk feneen xalifa yàlla bi kon dafay séddale waaye mayewut dégg naa ko mu foog ne yàlla bu joxe yonent bi lépp yonent bi daf koy moom waaye mu wax wax ju suufe lool mooy yàlla bu leen ko ragal ragal leen yonent bi te loolu li muy tegtale mooy moom pour moom yonent bi mooy maye fekk yonent bi mayewut waaye dafay séddale yonent bu doon maye aba taalib du dee ci yéeféer abu lahab du dee ci yéeféer du xër waa màkk yi ñu nekk ñu dugg ci lislaam ba yàlla ne ko sawaawun alayhim antartuhum am na tunturum laa yuminuun du yow yaay tijji xol yi waaye la ala qulubihim yàlla mooy tëj xol yi te moo koy tijji wa samaihim mooy tëj seen nopp yi du yow yaa ko tëj wa ala kon aaya ji dafa tàqale diggante yàlla ak yenent bi inna allazina kafaru sawaun alayhim andartuhum am lam andartuhum am nan tundirum laa yuminuun yàllaa ngi wax ak yenent bi di wax ak ñi nga xam ne programme wut ci ñoom gëm yàlla dégg nga ne ko nag boo leen waaree ak boo leen waarut ñoo ci yem maa tëj seen xol yi mënoo ko tijj maa tëj seen nopp yi mënoo ko tijj maa seen bët yi mënoo ko tijj kon aaya la boo xam ne yenentu bi kon ku ko yàlla jox ne ko jox ko joxal diw imaan yenentu bi ko rek la sañ a jox imaan léegi nag kon su ko defee loolu point la boo xam ne bu am solo la boo xam ne mën nañ cee bañ a taxaw kon xalifa yàlla bi yàlla xaqatu mamadiya ak dégg nga al amaana amaana yàlla bi ak xalifa yàlla bi nga xam ne moo enu amaana bi muy ñeent léegi nag fil wujud al wujud wujud ñaari wujud moo am wujudul xaqiqi ak wujudul majaasi wujudul majaasi mooy kawnu bi xalifa yàlla bi dafay nekk ci biir kawnu bi ndax ci asamaan lay dëkk wala ci jaww ji lay dëkk wala taxta lay dëkk bàyyi ne wala alquran ne fii ardin inni jaayilun fi la ardi xalifa kon ci suuf si lay dëkk suuf si ndax fépp lay dëkk déedéet benn barab rek ci suuf si lay dëkk moo tax nit ñi mën a def safar tukki bàyyee ko ca barab yañ ne dem ci barab ba nga xamee ne fa la nekk safaru ila man huwa kaamilu asri kon su ko defee yonent bu nekkee màkk dañuy tukki dem ci moom Cheikh Tidiane bu nekkee Faas dañuy tukki dem ci moom Cheikh Ibrahim bu nekkee Medina dañuy tukki dem ci moom dégg nga Mawlana Cheikh bu nekkee Boubacar dañuy tukki dem ci moom moom mi nga xam ne sax moo koy wax te du xalifa yàlla dañuy tukki ñëw ci moom dana am ay nit yu bàyyi ko ay dëkk déplacé wu ñëw fekk ko ci barab bam ne kon loolu mbir la moo xam ne mu jar a bàyyi xel kon xalifa yàlla bi dafay am dafay uuti yàlla ci suuf yàlla moom mu ngi fépp waaye xalifa yàlla bi moom ci suuf si la ne jëmmi yàlla ji mu ngi fépp fa aynama tuwallu fa sama wàccullah waaye jëmmi xalifa yàlla bi moom nekkut fépp mu ngi ci kaw suuf si ba pare ci suuf si nekkul fépp dafa am fenn fu mu fi nekk rek exemple bu fekkee dakaar la nekkul Thiès nekkul Mbuur nekkul Kaolack dakaar la ne bu dee yàlla nag moom fa ay na ma toolu fa sama waccu laa yàlla dafa peeg mbindeef bi peegaale xalifa yàlla bi xalifa yàlla bi dafa peeg mbindeef yëpp waaye peegul yàlla xalifa yàlla bi jëmmam ji moom lañ dëxëñ kawnu bi waaye dëxëñuñ ci yàlla moo tax yàlla def koo peeg peegaale mbindeef yëpp moom mu peeg mbindeef yi nga te du peeg ak jëmmu peeg ak maanaa la loolu tamit ñu bàyyi ko xel kon lii différencé ne ko peegam ak peegu yàlla moo tax boo demee Cheikh Tidiane radiyallahu mu ne jëmmi aadamiyu bi dafa peeg mboolem mbindeefi dafa peegaale malaaka yi mu ne dañ ko laaj mbindeefi fan ak fan la fan ak fan la dépare mu ne minal arshi ilal farshi la ko dalee ci aras ba ca farsu te farsu mooy taxta kon su ko defee kon peegut yàlla waaye mbindeefi la peeg léegi nag yàlla dafa peeg mbindeefi yëpp te xalifa yàlla bi ci yi la bokk looloo tax nag jëmmam ji comme peegun mbindee fi waaye daf leen peeg ci maanaa moo tax mu mën a ñu mën a wax xalifatullaahi fii ardin kon suuf si moom da koo peeg dëkk bi mu nekk da koo peeg kon su ko defee xalifatullaahi fii ardin euh, léegi yàlla taxaw na ak kim yebal mu uutu ko comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee pour wane na xalifa yàlla bi du yàlla yonent bi alayhi salaatu wax na ci ne yàlla yónniwut benn yonent wala mu uutal benn xalifa du dul jox na ko ñaari conseil yoo xam ne dafay wéetoog ñoom kii di ko digal lu baax di ko si ñaax kii di ko digal lu bon di ko si ñaax lii rek mooy wane ne kon xalifa yàlla bu fekkoon yàlla yàlla du am conseil moo xam bu baax ak bu bon yonent bi teg ci ne waaye wal maasuum mu ne nag ki nga xam ne mucc na ci conseil bu bon bi yàllaa ko musal du yem sax ci léegi wax ko ci olof waaye dama koy génnee dégg nga euh, su ko defee ma liir ko taalibe yëpp man koo dem seeti addis bi parce que jamono foofu la toll ما بعث الله من نبي حديث باغا ابو سعيد موكو صلو الباني انكو الباني موي محدث بي صحيح الجامع بخاري جننكو ايوا لغي بو ديمي سي صحيح الجامع دنج 5579 موي موي نيمورو حديث بي بو ديمي سي بخاري 7198 موي حديث بي ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بتانتان بتانة تأمره بالمعروف وتحده عليه وبتانة تأمره بالشر وتحده فالمعصوم من عصمه الله yonent bi ما بعث الله baasa yónni allahu yàlla ولا استخلف ولا مؤتل من خليفة تي خليفة يالله إلا كانت دون نكنا له نيالك موم خليفة يالله بولا ينون بيتانا تان نياري كونسي نيو خم دنيو نبون تنك موم دنيو ويت موم بيتانا تن تأمره بالمعروف كو خم ندفع ويت موم ديكو ديغل لباخ تي ني أن شيء أنن دورم وتحده دينغ عليه واي ديكو كونسي ديكو نياخ تي wa bitaanatun taamuruhu bi charri ak koo xam ne daf koy digal lu bon te ci taalibe mi lay nekk waaye ci tuuxi doon rek la koy dugal ba pare nag wa taxudu mu ko cay ñaax di ko si jéem a defloo mu ne waaye nag fal masuum ki mucc ci beneen conseil bu bon bi yàlla mooy ki nga xam ne moo ko musal kon addis bi dafa nekk addis boo xam ne dafay wane ne xalifa yàlla bi du yàlla yenentu bi du yàlla aywa kon su ko defee yi wax la ne kon yàlla xalifa yàlla bi ak yàlla bokkut xalifa yàlla day séddale mais yàlla day maye li mooy différence xalifa yàlla bi day séddale waaye yàlla dafay maye di xeñe moo tax Baay wax ne xalifa yàlla fa muy séddalee amul mbokk amul jegeñaale amul famille amul njaboot mu ne su fekkoon ne lii da koo am ku noonu abi taalib dégg nga mën a gëm yàlla mu ne waaye yaram bi ci boppam yaram bi ci boppam ca bëgge bëggee abu taalib dugg ci lislaam dégg nga te yaram bi du moom mooy séddale te yaram bi du mooy maye mu ne waaye jihatu côté baatin bi ci boppam ba mu bëggee Omar ibnu Xataab dugg ci lislaam te yàlla dénk ko imaan mu war ko jox Omar ibnu Xataab ba mu ñaanee rek Omar daa dugu ci lislaam loolu Cheikh Ibrahima wax na ko danañ ñëw ci vidéo spécialement pour wane ne waa ji xàmmewul yàlla xàmmewul xalifa yàlla dégg nga ci vidéo boobu muy waxee ne jëmmi nit ki mooy jëmmi yàlla ji waaye ruuxu gi ci boppam mooy yàlla wala mooy yenentu bi muy firi aynullah mu nekk loo xam ne mbir muñ war a bàyyi xel la xalifatullaahi fi ardin xalifa yàlla ci kaw suuf foofu dinaa fa dolli benn point rek moom dafay gëmloo taalibe yi ne yàlla bu amalee yonent day ñàkk yonentu bu amalee Cheikh Tidiane day ñàkk Cheikh Tidiane bu amalee bàyyi day ñàkk mu gëm ne moom moom la Baye amal te mu ne kaw ni bi mooy yàlla waaye asamaan mooy yenentu luy kawnu mooy boo boolee aras ba taxta sara lii mooy kawnu léegi asamaan mooy yenentu kon asamaan yenentu bi li yàlla am amu ko ndax asamaan li kawnu bi am amu ko suuf mooy seexu tiyaan léegi kon bu asamaan xasee am kawnu bi daa war a ñàkk dégg nga bu asamaan xasee am kaw bi daa war a ñàkk ndax asamaan eh, kaw bi nee na mooy yàlla te yàlla bu amalee ñun day ñàkk dégg nga bu indi ca baay baat yu baat yu baat yu réew réewant réew réew baat yoo xam ne boo ko déggee rek ku réew nga koy jox muy baatu yàlla ba mu reppee dégg nga léegi nag eh, léegi asamaan su amee di yenantu après lu ñu amal suuf te bal sax suuf moo njëkk am asamaan ci bind suuf la yàlla njëkk amal ba pare soo amal asamaan hmm? waaye loolu taxu ñoo jóg li ñuy tax a jóg tey moom daa ñàkk kon taxta saraa rek moo fa des fii kon nekk gi nekk si kaw suuf pour lan la kon xaal bi rek def ko fenloo pour wane ne li muy wax xamu ci dara aywa kon xalifatullaahi fi ardin wax naa ne nit ñi fi nekk nga xam ne ñoom la yàlla ñoom la xalifa bi uutu uutu uutu yàlla ci ñoom di leen sédd ñoom ñu ngi am suuf saa ngi am xalifa yàlla bi am yàlla am amaane bi am ak lam jox xalifa yàlla mu war ko séddale muy ñaata bari na te moom nee na ku fi gis yàlla ak leneen safara la jëm kon léegi bàyyi fu jëm kon beneen problème la lizaaka dégg nga lizalika man ra'akum qad ra'a rabbal bariyati bàyyi mu ne Cheikh Tidiane lii moo tax nekk gi ngeen nekk xalifa yàlla moo tax ku leen gis rek gis yàlla léegi baat bii nag mooy baat bi ko gàllankoor man ra'aakum képp ku leen gis kaddara ra'a rabbal bariyaati te bayti bi wax naa ne waru koon utiliser ndax bayti bi daa saxal ki war a gis Cheikh Tidiane ak Cheikh Tidiane bayti bi daa saxal xalifa rabbal bariyaati ak rabbul bariyaati bayti bi da ko saxal al bariyaat mbindeef dégg kon su ko defee Euh, bayti bi bokk ci bayti yi mu waroon a utiliser boo xamoon boppam léegi nag bayti bi ñaari dégg-dégg moo fi am dégg-dégg boo xam ne wax yun min ash-shaytaan mooy wax yi boo xam ne dafa baye ko ci iblis mooy xalifa yàlla koo gis-gis yàlla iblis na la kon est que du xalifa yàlla mooy yàlla ak dégg-dégg boo xam ne dafa bàyyi ko ci yonent yàlla muhammad te loolu mën naa ci indi lu jege baay bi mu nekkee xalifa yàlla moo sidi ali sa bi mu koy def tar juma ci moom daf na wowal baabul maftuuhu li kulli man yuridu wuluju ila hadat qudsi bàyyi mooy bunt bi nga xam ne moom lañu ubbi ci képp ku bëgg a dem ci adara qudsi adara yàlla bi du loolu la wax waa kon te bàyyi mooy xalifa yàlla bi bu fekkee xalifa yàlla bi mooy yàlla lan la bàyyi di mën a nekkee bunt bi la in ashrakta bu fekkoon yonent bi moo yàlla léegi yàlla ndax mën naa bokkaale hmm? te lii yàlla def na ko yonent bi wax naa la ko wax ko yonent yi la jiitu yëpp kon aadama ci la bokk kon aadama sax bu bokkaale yàlla dañuy sippi ay jëfam su fekkee aadama mooy yàlla ba mu yàgg mu dem keneen dem ci keneen ba ci Cheikh Ibrahim waa aadama lu tax mu lekk garab gi bañ koy génne ajana yàlla naka lañ ko mën a génnee ajana denga nga sànni ko ci kaw suuf moo xawaa ñuy wërante ba tase arafa ci ay coono yu rëy kon da ngay gis ne boo ci déggee ne xalifa yàlla mooy yàlla kooku da ngay bokkaale yàlla te bàyyi waxul loolu bàyyi du wax lu uteeg sharia wa saana yi nafsi dahra la ura amiru ila ma laysa fi sharia jaiza dégg nga yàlla protégé na bakkanam ba def lu uteeg sharia kon xalifa yàlla bi mooy buntu yàlla moo tax koo gis gis yàlla moo tax loolu aaya ba gën koo saraa dégg nga mooy aay boobu alquran wax ne fa fiiru ilallah baay bi nga koy firi def ne daw jëm ci yàlla mooy daw dem ci kaamil asri lu tax kaamil asri bi du yàlla waaye ku bëgg a dem ci yàlla moo la yóbbu ci yàlla waaw suñ ne la nag soo ne damaa bëgg a gis yàlla njaay ñu ne la boo gisee ñaa gis nga ko ndax dafay tegte ne ñaa mooy yàlla njaay ah booy gis ñaa rek gis nga yàlla njaay est-ce que loolu day tegtale ne ñaa mooy yàlla njaay ah? su fekkee ne nit ki loolu la ci déggee kon moom amul dégg-dégg ci diina waaye nag ki am dégg-dégg bu rafet bu feebarut mooy mu ne booy gis ñaare ñaare gis yàlla yàlla njaay que ñaa moom amul problème mu gis yàlla njaay amul problème mu gis loo nit yàlla njaay moom lañ wax ne wowal baabul maftuul li kulli man yurid wulooju ilaa del qusi mooy buntu boo xam nañ ko ubbi ci képp ku bëgg a àgg ci yàlla da ngaa bëgg àgg ci yàlla da bëgg dugg ci hadrat qudsi waaw gisal Cheikh Ibrahim boo gisee rek dem ci hadrat qudsi kon su ko defee loolu dafa nekk point bu am solo moo ta yonentu ba waxee daw leen jëm ci yàlla li tegtal li baay wax daw jëm ci yàlla mooy daw dem ci kaamil asri te kaamil asri du yàlla day nekk ci barab walis barab te yàlla mu ngi fépp li koy tegtal daf ne inni inni gis naa mu koy firi waaye mënu ko firi da ko yàq inni man yenent bi lëkkum maa maa leen ñeel minhu tukkee ci yàlla maa jugee ci yàlla kon hadis bi daa wane ne aay bi daa wane ne yenentu bi sallallahu alayhi wasallam oote wu ne mooy yàlla daa oote ne moo jugee ci yàlla ñeel leen ñeel leen ci lan comme da ngeen war a dem ci yàlla maay ki leen ñeel pour yóbbu leen ci yàlla ndax man maa fa jugee da ngay dem Kawlax dem leen Kawlax dégg nga man maay ki nga xam ne maa jógee Kaolack maa xam Kaolack kon kon dem leen Kaolack mooy ñëw leen ci man ma yóbbu leen Kaolack kon ñëw ci yenant bi du tere nga mën a dem Kaolack waaye boo ñëw ci yenant bi boo waree dem Kaolack fooy jaar bu fekkee xamu yoolu kawlax bi kon inni lakum mooy minhu man maay ki baxee koo ci yàlla du ma yàlla maay maa baxee ko ci moom rasulun min allah man la yónni pour mu yóbbu leen ci moom kon su ko defee kon yonent bi mooy buntu bi ngay jaar pour mën a dem ci yàlla waaye yonent bi du yàlla waaye mooy représenté yàlla lan mooy rôle am nag ci aaya bi mooy gaa yi war a dem ci yàlla ñu jaar ci moom mu ànd ak ñoom yóbbu leen ci yàlla tey boo bëggoon a dem ci yàlla njaay boo demee ci ñaare këram moom mu yóbbu la ci yàlla njaay kon su ko defee loolu mooy dégg-dégg bi dëppoog diina Cheikh Tijaan radiyallaahu anhu nee na an al kashfa saxiix te loolu ijmaa la ñëpp dëppoo nañ ci dégg-dégg bu wér laa yuxaalifu nasasari du uteeg texte bu wér te texte bu weer mooy alquran ak sunna kon wax ju ñëw rek dañ koy peese ci alquran ak sunna fahmul jadid fil kitaabi wa sunnati mooy dégg-dégg boo xam ne dafa bees dégg nga ci alquran ak sunna kon xalifa yàlla koo gis gis yàlla xalifa yàlla mooy yàlla loolu bokkaale la loolu bàyyi du ko wax kon su ko defee xat bi nag moo leen ci rey xat bi xam nga moom jàngut yaa ngi dégg ah Ibrahima Sono soo gisee gis Cheikh Mbow soo koy gis rek gis Cheikh Mbow parce que loolu amul werante yaa ngi de moom du fëgg buntu Cheikh Mbow te ubbilu ko kon kay soo koy gis gis nga Cheikh Mbow gis nga ko rek gis nga Cheikh Mbow loolu kay baat bu leer la nit su jegee nit ba nga xam ne bu fëggee bunta mu ne ko kan la mu ne ko man la sañu ta ñàkk ubbi kon soo bëggee gis kooku booy gis kii gis ko président bii di Bassirou Diomaye Faye suñ ne la soo gisee Sonko rek gis ko waxuñ ne Sonko mooy président bi waaye jege na ko jege goo xam ne du fëgg buntam te ubbiwu kon moo tax dama bëgg ñu xam ne gis nga gars yi xel sax amuñ ko waxuma la ay xam-xam de mais xel sax amuñ ko xam-xam sax amu ko ndax baatu xalifa duñ ko tuddee yàlla khalifatullahi fi ardin loolu duñ ko du nek turu yàlla manam uutu yàlla ci suuf uutu ci suuf loolu duñ ko tuddé yàlla yàlla tanku te suuf day tank nit denga khalifa yàlla bu fekkoon lim yor moko mom ku non doom yi ñoy rew ci yàlla wala sel la ndax doom yi ñentume rew ci yàlla ndax doomi Cheikh Ibrahim ñoo raw ci Cheikh Tidiane ñoo raw ci yàlla kon doomi khalifa yàlla bu fekkoon khalifa yàlla mom mbir mi ay doomam ñoy raw ci yàlla kon dafa am yoo xam ne yonent bi lu mu waxoon Fatima laa wax an anka minallahi shay'an anka minallahi shay'an man ci wàllu yàlla mën lu ma la fa dara bu nit ñi ñëw àllaaxira indi seen jëf yow nga ñëw naa yonent moo mooy sa mooy sama baay waaw bu fekkoon yonent bi moo moom affaire bi bu leen ragal yàlla ragal leen yonent kay bu dee yonent moo ko moom nan la mën a waxee lii Fatima kon xàmmewut ki nga xamee ne mooy xaasim ak ki nga xamee ne mooy mu'ti te pourtant yaa abal xaasimi bayti boobu mokkal na waaye xàmmewut ba tey maam mu ngi wax bayt bi waaye xàmmeew ko ñu ngi ko ci adaraam mooy xàmmeew ko kon lii mooy dégg nga jafe-jafe bi nga xam ne moo leen dal kon xalifatullahi fi ardin lizaaka man raakum faqad raa man raakum qad raa rabbal bariyaati beneen bi ci tegu mooy xanaa ñu jàngalaat ko rek comme ñun la ko yàlla booleel ñu jàngalaat ko rek ñu ñooy ay magu taalibeem ci adara bi magu taalibe moom li muy jëriñ rek mooy sa rakku bu defee ay yenn erreur nga dimbale ko loolu mooy liñ digle ci tarixa bi donte nag moo ñu mag ci at waaye magal ci yàlla tënkut ci at indi laa ara sinnan xayda loolu la Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu léegi maa ngi koy yebal moom yàlla njaay ak ku mel ni caam saw ñu dem ca tafsiru Cheikh Ibrahim ba jus u rabia deux cent vingt-trois fi bàyyi di firi la yastaxlifanum fil ardi kama staxlafa lazina min qablihim bu demee foofu da nga fekk bàyyi di firi xalifa yàlla ci kaw suuf mu jàngale foofu ñaari xilaafa alxilaafatu an niyaabatu pour ma comme joxe naa paas bi rek ma bañ ko liir ma bañ caa sonn mu ne xilaafa mooy uutu uutu benn jëmmu a sax su jëmmu jëmm joo xam ne dafa fàddu kon léegi nekku di jàngale xilaafa yàlla waaye xilaafa nit lay jàngale wala xilaafa mbindeef ki nga utu dafa fàddu dafa fàddu égal dafa dafa tukki nga utu ko ci barab wala égal danga nekk ci barab bu mu nekk dara xew fa mooy la utu ma fa kon dafa fàddu aw maata wala mu dee dégg nga képp koo gis fi mu nekk xalifa baayam rek wala baayam rek baayam daa dee mu soog a nekk xalifa wala déet kon baayam du yàlla bu doon yàlla du dee dégg nga ñi fi dee ñëpp kenn du ci yàlla yonent bi du yàlla Cheikh Tidiane du yàlla Cheikh du yàlla dañuy dee am xalif kon xalifa yàlla day dee du yàlla wala sa mag moo doon xalifa waa ji sa mag génn àddina dee nga ñëw nekk xalif kon aw aw ajasa wala dafa lot xalifa bi mënuñ ñëw ndax daa feebar dégg nga mënuñ ñëw wala dafa nekk tukki ci beneen jotaay te mënul boole ñaari jotaay kon su boobaa dafa lot dégg nga euh, su boobaa nag yaxtaaju lil xalifa dafay soxla nag ku ko uutu loolu mooy premier xalifa bi xalifa yi fi ne Sénégal yëpp ñañ uutu dee nañ dégg nga yàlla nag xayun laa yamuut yàlla dafa dundu waaye du dee ñoom nag bokk na ci lañ gëm ruuxu xalifa yàlla bi mooy yàlla dégg nga jëmm ji mooy xalifa yàlla bi kon jëmm ji fii la fekk asamaan suuf kon loolu li muy tegtale mooy kon xalifa yàlla bi du yàlla wala déet xam nga jëmm ji bu fekkee mooy mooy xalifa yàlla bi ruuxu gi di yàlla buñ tàqali ko ruuxu gi day demaat ci beneen jëmm wala déet léegi ana xalifa yàlla bi ah xalifa yàlla bu dee mooy yàlla day dee ana Adama ana Nuhu ana Ibrahima ana Moussa ana Insa pour nga xam ne gars yi amuñu xel amuñu xam-xam yow naka na xalifa bi mooy yàlla ba pare yàlla di yàlla yàlla di dee Adama di dee Ibrahima dee mu dee Moussa dee Insa dee yonentu yàlla Muhammad Cheikh Tidiane ñoom ñëpp dee kon su defee bu dee ruu xalifa yàlla bi mooy yàlla mais waroo wax ne kon yàlla fii la fekk asamaan suuf ndax ruu xalifa yàlla bu dee mooy yàlla kay ruu boobu moo fi jiitu asamaan suuf dégg nga bu dee jëmmi jëmmu ji mooy xalifa yàlla bi jëmmu jooju moom fii la fekk asamaan suuf waaye jëmmu jooju du yàlla kooku basar la dañ ko bind mu bàyyee ko suuf kon jëmmu jooju mënu nekk yàlla kon xalifa yàlla bi mënu nekk yàlla jëmm ji dañ ko bindee suuf suuf nag dañ koo bind te yàlla laysa min shay yàlla bàyyee ko ci dara te jëmm ji a nga wax ne suuf la bàyyee ko dégg nga minhaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum kullukum min aadama wa aadama min min turab kon su ko defee ñi ñëw gannaaw ga yëpp ci aadama lañ bàyyee ko innaa xalaqnaakum min nafsin waahida yonent yàlla Muhammad min nafsin waahida Cheikh Tidiane min nafsin waahida Cheikh Ibrahim min nafsin waahida Mawlana Cheikhul Xayr min nafsin waahida ñoom ñëpp ñu ngi leen bindee ca aadama alxaqu laysa min shay kon jëmm ji bu fekkee moom la jàppee xalifa yàlla jëmm ji fii la fekk asamaana suuf waaye bindul asamaana suuf bu fekkee ruu gi la jàppee yàlla ruu gi moom moo fi njëkk asamaana suuf kon yàlla fii la fekk asamaana suuf moom juum juum la foo mën a jaar rek da ngay juum dégg nga wax bi de kon su ko defee euh, kon uutu nit parce que dafa dee wala dafa tukki wala dafa lott loolu mooy xale xilaafa yi nekk fii di majaas léegi nag bu dee xalifa yàlla nag bàyyi na aw ustuxlifa tashrifan faqat wa takriman gis nga xalifa yàlla bi yàlla da koo def xalifa ngir teral ko ngir teddal ko ak teral ko waaye yàlla lottut ko mu mayee séddale waaye dafa def xalifa yàlla bi xalifa yàlla ngir teral ko ngir teddal ko dégg wax bi de te doomu aadama moo gën a mën a jëflanteeg doomu aadama dégg nga yàlla bu amul barab xalifa yàlla bi am na barab mën ngaa dem seeti ko yëngatu yu bari mën a mën koo jëflante xalifa bi kon su ko defee kon xalifa yàlla bi yàlla def koo def dégg nga muy xalifa yàlla te fekk moom mi ko def xalifa yàlla mu ngi teew kon yàlla du dee yàlla du fàddu yàlla du lot yaa ngi dégg kon yàlla dafay def xalifa yàlla bi xalifa yàlla bi ne fi yàlla ne fi kon kii wax ne yàlla bi mu amalee yonent bi daa ñàkk kon loolu mooy wane ne li muy wax bokkut ak li bàyyi di wax bokkut ak li diine di wax kon loolu su ko defee ñu bàyyi xel maa xuduril mustaxlaf ànd ak teewaayi ka nga xam ne moo ko def xalifa ànd ak teewaayam wa haza xilaafa gii nag maa li awliyaa yi la tabaraka wa taala ni mooy xilaafa gi wëlu yàlla yi am kon wëllu yàlla bi nga xam ne bàyyam a dee kii bàyyam dee mu nekk xalifa kooku nekkul xalifa yàlla kalifa bàyyam la bàyyam daa dee moo tax bàyyi ñas bi muy nekk xalifa yàlla bàyyam daa dee woon magam daa dee woon ah koo gis nag bàyyam de wala magam de mu nekk xalifa rek du xalifa yàlla wutu wut yàlla mbindeef la wut bàyyam la wutu wutu magam yàlla dafa def xalifa xali wulu yàlla yi daf leen def ñuy ay xalifaam dégg nga te yenentu ca la bokk Cheikh Tidiane ca la bokk Cheikh Ibrahima ca la bokk ñoom ñu ay wëluyu yëluyu lañ hum xulafaawu laa ñoom dañoo nekk xalifa yàlla wallaahu xaadirun yàlla ngi teew laa yaxiibu yàlla du fàddu wala yamuutu yàlla du dee dégg nga wax bi de yàlla du dee du fàddu yàlla du tuxit parce que mu ngi fépp mbootam nag mën naa toxu jóge ci kii dem ci ki kii yenu ko kii yenu ko kii yenu ko waaye lay toxu noonu du yàlla amaanaam bi la beneen bi pour wan ko ne ko moom xamul yàlla bu fekkee ruu bi nekk ci xalifa yàlla bi moom mooy yàlla waaye léegi buñ demee àllaaxira ruu gi ci kan lay nekk aadama taxawee nuuhu taxaw ibrahima taxaw muusa taxaw insa taxaw yontu yàlla muhammad Cheikh Tidiane Cheikh Ibrahima solu xëyri léegi bu ñu demee àllaa xëy ruu gi ci kan lay dugg ah ah waaw parce que ruu gi ki mu nekk ci yow feeg yaa ngi dund ci kóor lay ne te li lay xamal ne li mu wax du xam-xam mooy aadama mu ngi fi siisaang fi ku nekk am sa ruu bopp mbaqaam bay ko ci aadama dem ci siisa su fekkoon ne ruu gi nekk ci aadama mooy dugg si sa il faut aadama dee suy sa soog a judd ma joxaat ko bu gën a jege Abdoulaye Wul Daaj ak baay Baye ngi dund Abdoulaye Wul Daaj dund ku nekk am ruu kon moom xamul sax ne xamul lu aywa kon su ko defee moom muy wax noonu dégg nga dajee naag baay mu am ruuxu Baye am ruuxu su fekkoon ruuxu xalifa bi ruux gi ne ci xalifa yàlla mooy yàlla kon moom du mën a dajeeg bàyyi bàyyi day dee soixante quinze mu judd soixante quinze kon loolu mooy xamal na rek moom la mu wax xamu ci dara amul xel insaan xeyru aqil nit la koo xam ne amul xel dégg nga moo tax maa ngi dégg mu ne lu ma dof dof dof wallaay dëgg la de <laughs> te xam nga ñi ñi liñ jàppee dof rek mooy ku yenu sagaram ku yenu ay sagar solu yére yu baax ne ci mbedd waaye dof yaa ngi fi sol dara yu rafet sol ay kaala kaalawu fekk ñoom ñoo gën a dof ñëpp dégg nga nit naka la ñàkkee amee xam-xam nii moo tax bàyyi di wax ne dégg nga waa ji daal moo gën a réer ñoom jiite ndax lii wax la joo xam moom moo ko njëkk xalaat ci ñoom jiit dégg nga moo koy wax ba pare convaincre leen ci te xalifa yàlla bi mënu nekk yàlla ba pare dégg nga jëmm ji mënu nekk yàlla ba pare nga ne nga ñëwaat nga ne jëmm ji mooy yàlla fii la fekk asamaan su ëlbatuwaat ne jëmm ji du yàlla jëmm ji mooy xalifa yàlla waaye ruug mooy yàlla diggante baay Abdoulaye Wul Daaj baay nga fi Abdoulaye Wul Daaj fi kon ñoom ñaar ku nekk euh, euh, euh, dégg nga yor bàyyi li mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi sara sirruhu fii haykali war waaye kon sirru yonent bi sallallahu moom la bàyyi di yenu waaye du ruuxu yenant bi bu fekkee benn ruuxu la waa allah subhanahu wa ta'ala nan lay doxee kon parce que alamul arwa ruuxu yëpp a ngi fa yaa ngi dégg ruuxu bàyyi fa ruuxu yenantoo fa ruuxu Cheikh Tidiane ruuxu Cheikhul Xayr ruuxu keneen ak keneen yàlla taxaw na ne allah subhanahu wa ta'ala léegi fekkee ruuxu yàlla ah kon alamu arwa kay adama du ko fekkee yontu yàlla Muhammad mënu koo fekkee parce que jëmu newu foofu kon naka la mën a waxee loolu di jàng yàllal imaamil muxtala mata ajaab bi bala kon waa ji waxuma la xam yàlla sax waaye kenn xamul man man baat bu ma bëgg a jël rek yaa ngi dégg dama koy xeeb maanaam fu ma ko bëgg a teg ah jeex na Cheikh Tidiane nee na sama ruu ak ruu yontu comme ñaari baaraam yi kon Cheikh Tidiane nee na ñaari ruu moo fa nekk yaa nga wax ne benn ruu xalifa yàlla bi mooy yàlla moom mooy toxu jugee ci aadama dem ci kii te affaire bi mu jugee ci aadama ci siisa la dem faqad ixtaara rabbuna aadama waxtaara siisa te siisa mu ngi dund ak aadama kon yow est ce que xam nga yàlla xam naa ruuxul wujood bi muy dégg moo tax mu foog ne ruuxu yaram bi la waaw ruuxul wujood xam naa ruuxul wujood bi la dégg nga te ruuxul wujood bi mooy xalifa yàlla mooy ilimaani mul koog ko kooku du yàlla ba tey te loolu danaa ko gën a leeral ci ay waxu baay kon su ko defee mbokk yi kon euh, xalifa yàlla bi dégg nga dafay nekk yàlla ne fi dégg nga euh, daf leen def xalifa ngir teral leen waaye bu du xalifa yàlla bi nag bàyyi mu ne dañ leen di def uutal ngir kañ uutu dafa am xalifa ak maxluuf maxluuf mooy kiñ uutu xalifa yàlla bi mooy mooy mooy mooy bi yàlla nag mooy maxluuf mooy kiñ uutu moom nag ñaari xàmmewu ko waaye su demee texte bi rek xam-xamam dina yokkoo yaa ngi dégg dégg mëdal bu bu yooyu ko sewul xayri jaar si ñun ñëw ci moom ak mboolem jaamu yàlla yi nga kon xalifa dafa am maxluuf am mooy ki utu ak kam uutu moom nag ñaari xàmmewuñ ko te bayti bi daf ne xalifatu mooy jaam bi allah mooy maxluuf moom xàmmewu loolu fi mu ko uutu mooy suuf si ñi mu ko uutu mooy ci mbindeef ci lan la ko utu mooy séddale nii la mbir yi demee fi ko utu mooy ci suuf si ñim ko utu mooy mbindeef yi ci lan la ko utu mooy séddale kan lañ utu mooy yàlla kan moo ko utu mooy jaam bi mooy xalifa yàlla bi kon su ko defee euh, yal nañu yàlla dimbale ala kulli halin yal nañu yàlla defal tawfiqul ilaahi bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam léegi point boobu loolu lañ ciy tënk danañ ñëwaat nag beneen jotaay boo xam ne mooy gën a yaatu ci jàngale nit buñ jàngalee nit danañ ci xamee ne moom xamul nit danañ ci xamee ne moom taalibe yi ko uysi pour mu yóbbu leen ci yàlla yóbbu leen ci yàlla ci mbindeef leen di yóbbu danañ ci xamee ne moom gisul yàlla parce que bu ne boo xëttee asamaan si doo gis yàlla pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam asamaan si la xëtt gis yàlla de rayaanu yonent bi ah xarajta minal wasiri te moom mu ngi jàng saral Moustapha lay la kon yonent bi lu mu xëtt Hmm? xam nga ne ki gën a suufe ci xam-xam tey ci àddina bi mooy yàlla njaay xam ngeen loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rañaan xarajta minal akwaan tajaawasa aflaaka nujum génn kawnu bi yëpp bàyyi na xaraj eh, jihaaran laqetu mustafa ilallaay bàyyi xëtt kawnu bi fekk fa yàlla yow mën a xëtt kawnu bi fekk fa yàlla kon su ko defee moo tax waa ji bëgg ma noppi ndax man samay wax day leer waaw dama sama wax day leer damay jël temps damay jël temps di ko gàgganti comme professeur université bi gàgganti élève primaire moo tax gis nga ñiy def ay vidéo di ko saagaak yoonam newu ci waaye man maa man maay problème man parce que sama wax ji moo mën a tas xadara ba waaye wa jël vidéo rek saaga ni loolu du dara wala ñaawal nit loolu dara kon ala جهارا لقيت مصطفى بعروج إلى الله من ذا الكون وقت خروجي بين الإنسان يريد الوصول إلى الله وبينه وبين الله حجاب وهذا حجاب nga war a xotti kawnu bi dem ci yàlla ngeen asamaan si boo xottee doo fekk yàlla bokk na tamit ci li leen di dugal ci yooyu mooy aalam bañ la jëlee ku fa dem yeren daw lu wér maanaam aalam ba nga jógee mooy aalamul arwaax ku fa dem yeren daw lu wér ndax ku fa dem du fa fekkati sa ruux waaye nag bul fàtte ne aalam la wax aalam boo fa demee da nga ko fekk yàlla waaye ruu ga fa jugee ñëw ci aalamu aswaake doo ko fekk yaa ngi de yërang ndaw lu wét kon kaabel ma ñu ngi ko campé sodal ñoom comme dégguñu woy Ibou Diouf dégg nga problème bi ci boppam foofu lay nekkee kon ala kulli haalin loolu li muy tegtale ne mooy moom aggut ci yàlla te gis nga aggut ñàkk agg ci yàlla bi ci kanam tuuti rek bu ñu fi yàlla bàyyee may ñu may ñu wér ak tal ak fekkee dalaa leen wan ne waa ji du taalibe Baay taalibe keneen la bu juux ci biir taalibe Baay pour yàq faydu bi pour yàqaale diina ji danaa leen ci indil ay firnde yu leer yoo xam ne li muy oote bokk te li Baay di oote kon ala laalin moo tax baatu weer bi ba mu déggee tey moo weer ko rek ba léegi amu jàmm waaw ba mu déggee tey moo weer ko ba léegi amu jàmm parce que dajal problème bi mu ngand bi mu gën a am mooy ko weer yaa ngi dégg moo ta bi waaj ñëwee na ko yaay dajaal dafa gestu ci mbooloo mi ne leen ndax bu ma ko rayee da ngeen sikki sàkk dégg nga ndax bu ma ko rayee da ngeen sàkk kon ñëw boobu muy ñëw war a dugg màkk ak mbooloom pour def daxwaa jiite mbooloo mu bëri bokk ta nga dagg sa biir dem umra wër kaaba gi bokkuñu kon addis boobu nga xam malaaka yi dañuy dañuy wax ci hadis ne gis naa dajal mu yor kaaba gis naa Insa mu yor kaaba gi moo boroom borom xam-xam teg ñaari hadis yi ne kon li mën a li li am mooy dégg nga kon dajal mën naa dugg màkk ndax yonent bi gis na ko mu yor kaaba gi léegi nag waaye hadis bi waxee ne day ñëw ñu koy fatal màkk boobu day ànd ak mbooloo day ànd mbooloo pour dugal mbiram mi makk comme ni mu ko bëggee dugal ci dëkk yëpp noonu la ko noonu la ko yonent waxee léegi nag doo jël hadis bee ba hadis bi doo jël addis bi ba addis be moo man bu may jàngale ñaar yëpp lay jàngale yow nag léegi nga toog nga xalaat dégg nga nga toog nga xalaat boo boo ne yow da ngay taawil bële kon bul bañ taawil yaa ngi dégg maanaam gis na dajaal mu yor kaaba kon taawil ko rek dégg nga firee ko neneen rek dégg nga firee ko neneen waaye boo jëlee ñaari addis borom xam-xam yi ko jàngat ne mën na dugg màkka waaye yoon wii nag dafay ñëw ak mbooloom fekk liggéey na li muy liggéey ba ñooñ jàppee ko yàlla yaa ngi dégg ba mbooloom jàppee ko yàlla ba di campagne loolu ci àddina bi ñaari yi bokkuñu ba war dugal campagne boobu biir Màkka ak Medina ñaar yooyu bokkuñu kon nag su ko defee ku xam-xam na ne campagne yi moom kenn mënu ko dugal Màkka ak Medina waaw loolu ku xam-xam na kon su ko defee mbokk yi loolu ay point la rek yu ma doon tënk dina ko gën a ñëw ci beneen jotaay ndax am na yeneen jotaay ci diggante euh, lan mooy xalifa yàlla am na yeneen jotaay waaye ju ñu naa ko ci waxtaan bi paas naka noonu boo demee ci waxu Cheikh Ibrahim bàyyi def na al insaan xalifatullah tabaraka wa taala fi ardihi kon lii dana saraha xalifatullahi fi ardin lii may wax naa ma nga ca tafsiru Cheikh Ibrahim jusu ëwal boo demee da nga koo fekk ci xismu sa yaqulu su ma jumut bàyyi nee na al insaan xalifatullahi fi ardin fi ardihi fa zaatul insaan xalifatu an zaatillah jëmmi nit ki dafa représenté jëmmi yàlla kon ku jàpp ne sa jëmm ji mooy jëmmi yàlla ji ci faydu bi ak ci adaraam yow perte nga programme bàyyi xam naa ne nag am na ñu jàpp ne seen jëmm ji mooy jëmm yàlla ji bañ fëgg seen dënn ne jëmm yàlla ji moo jëmm yàlla ji lañ fëgg noonu te jëmm nit ku ne xam na ne fii la fekk asamaan suuf wala déet waaye jëmmu nit ki du yàlla du jëmm yàlla ji moo tax kon jëmmi nit ki dafa représenté jëmmi yàlla ji dégg nga wa sifaatul insaan xalifa an sifaatillahi tabaraka wa taala xam nga yàlla dafa am ay sifa ay melokaan qudratu iradatu ilmu xayaat samu kalaamu basar da ngay dégg ne la yàlla day dégg man damay dégg kon maa yàlla bàyyi ne déedéet yow sa dégg day représenté déggu yàlla gi dégg nga sa dégg dafay représenté déggu yàlla gi feneen mu wax ne ñun suñ dégg yi bokkut ak dégg yàlla ndax ñun suñ dégg yi bu biir wi amee rek day jaxasoo te yàlla moom biir du jaxase bu ñëpp doon waxandoor kenn ku nekk dana xàmmee sa wax te loolu dinaa gën a leeral ci euh, biir waxtaan bi kon su ko defee kon am nga kartan yàlla am na kartan waaye yow sa kartan gi dafa uutu kartanu yàlla gi moo tax bu ñu xoolee sa kartan ak kartanu yàlla dañuy gis ne am na loo man am na loo tële waaye yàlla moom tëlewu dara dégg nga beneen bi ci tegu mooy sa namu nam bëgg-bëgg yaa dangay bëgg yàlla bëgg da bëgg yàlla bëgg waaye sa bëgg gi daa am fu mu yem li nga xam ngay bëgg li nga gis ngay bëgg li nga dégg ngay bëgg te dana am loo gis ko bëgg dana am loo xam te doo ko bëgg danga am loo dégg loo dégg te doo ko bëgg du dëgg kon su ko defee yàlla nag dégg nga mbëggeelam dafa mat dégg yow sa mbëggee dafa manqué yàlla su bëggee dara danaan amal mu am yow na danga bëgg dara da ci dox téeméeri doo si jot kon sa bëgg daa uutu bëgg ak yàlla sa bëgg majaas la waaye mbëggeelu yàlla xaqiqa la mu xam-xam sa xam-xam ak da koo jiitu yàlla xam-xamam ak réer jiituwu ko sa xam-xam daa am foo ko rootee yàlla xam rootewu ko fenn sa xam-xam dafa limité wu yàlla xam-xamam dafa tinkeeku daa am loo xam am loo réeree yàlla na xam lépp alim bi kulli shay kon kon sa xam-xam gi nga xam rek baatu almu bi bi nga am gi nga ci am dara majaas la daa uutu xam-xamu yàlla xayaat sa dund gi dafa uuteeg dund ak yàlla gi ndax sa dund gi dee ko jiitu xalaqal mawta wala xayaat te it ca topp it dee jiitu waaye dee ci topp sa am gi ñàkk ko jiitu waaye tamit ñàkk ne ci kanamam waaye yàlla xayun laa yemuut yow da dundu waaye doo rayee yàlla dafa dund ba pare dafay rayee kon su ko defee sa dund gi dafa am fu mu tàmbale am fu yem waaye dund ak yàlla gi moom amut tàmbali amut yemukaay kon nag su boobaa sa dund gi majaas la dafa uutu dund ak yàlla gi sàmmoo dégg naka noonu yàlla dafay dégg lépp déggoo lépp waaye sa dégg dafa utu dégg yàlla gi loolu nag bëri na taalibe yoo xam ne fii lañ jàppee ni nit yàlla parce que ñu ngi dégg yàllaa ngi dégg déedéet sa dégg yi dafa utu dégg yàlla sa gis dafa utu dégg gis yàlla sam wax it dafa limité wu tey mën nga toog ci barab wax ak waa barab bi bu mbooloo mi bëree sa soo amul micro ñëpp duñ la dégg te yàlla kenn ku nekk mu ngi wax ak yow biir wala déet waar yi duy wàcc yow benn bàyyi ko ci yàlla benn bàyyi ko ci malaak benn bàyyi ko seetaan benn bàyyi ko ci nangam ku ci nekk day wax ak yow dégg nga kon su ko defee kon sifaatul insaan xalifa an sifaatillah kon loolu tamit ñu bari ci pays bi dañ leen nax ne yeneen yi yàlla parce que yéen a ngi dégg yàlla day dégg ngi dégg ñu bëri dañ leen nax ne jëm sa jëmu ji mooy jëm yàlla ji fekk dañ leen nax seen tarbiya xàgguñ ci yàlla wa afaalul insaan xalifa an afaalillah jëfe nit kii dafay uti jëfe yàlla fii nag moom daa gën a leer yow léegi yaay yàlla bindal asamaan pour dëggal sa bopp ah yow yaay bindal asamaan bindal suuf bindal xaalis nga jar ko wut hmm? bindal xaalis nga noppalu toogal sa kër nga defar xaalis kon su ko defee loolu problème la kon fa kullu insaan xalifa anilaahi tabaaraka taala fii jus in min al aalam mu ne nit ku nekk dafa uutu yàlla ci benn xaaj ci alam aw kasura moo xam lu bëri wala lu tuuti kullu naa rabbun li shay nekk ku nekk si ñun am na loo xam ne yow yaay boromam waa illaa anna rabba laa yutlaq ala xayrillah mu ne waaye yàlla borom nag duñ ko booyal mën nañ ko tënk ci nit ku moom bi nga ne maay borom kon yaay borom portable bi kon yaay rabbam yaa ngi dégg waaye nag yàlla duñ ko booyal lu dut gee rabbu duñ ko booyee lu du ci yàlla dégg nga illaa isaa udifa illaa udifa illa shay'in waaye nag bu dee nit ke mën nañu wax rabbu daari borom kër gi yaa ngi dégg wax bi ne nañu wax ne udifa ba tey kon laaf nañ ci daar yaay borom kër gi kon borom kër gi alam bi ëpp na kër gi waaye yow gi yaa ko moom ñu ne yaay borom kër gi ana borom kër gi ñu ne maa ngi nii ana borom soxna si ñu ne maa ngi nii ana borom malaat bi maa ngi nii ana borom oto bi maa ngi nii ana borom doom ji maa ngi nii kon doone man yàlla man tuddee nañ ma rek kon man man ma yàlla xam nga loolu moom laaju sax xam-xam bu mooy ñàkk xel yow da ngaa dof ah? lii nag gis nga méthode bii nag genre bii daa bëri ci faydu bi man am naa nangam kon maa yàlla ak a bëri te loolu li ko waral mooy muqaddam yu réer parce que lii man sama taalibe bu ko da dama naan ko yow dama koy ree yow dof nga kon ah? yow moomoo mooy kër rek nga bëgg fee nekk yàlla te yow suuf si bindoo ko ciment bi bindoo ko ndox mi bindoo ko dara yow loo fi bind kon problème ci boppam mooy nit ñi suñ bëggee dund li bàyyi indi dëgg il faut ñu ànd ak muqaddam boo xam ne li bàyyi nekk ci la ne li bàyyi oote da caa yegg kon su ko defee loolu euh, rabbu saw bi borom yére bi borom téere bi dégg nga yii yëpp mën nañ ko wax wa allahu wa rabbu xaqiqi yàlla mooy borom dëgg-dëgg waaw su fekkee ne yaay yàlla léegi-léeg lu tax boo dajee boo dajee xaalisu jàmbur boo ko jëlee ñu mën laa tëj ah comme yow yaay borom yaa yaay yàlla yaa moom lépp nuñ la ci mën a tëjee ah yàlla moom yàlla de moom moomoom lépp hmm? te lu waaye amin moo la ko jox te bu ko nangu ko ah yàlla day able de gars yi ne yàlla mayu day able dégg nga ah parce que lu la jox moom bés dana ñëw mu jëlaat ko wala déet te doyewu ko dara waaw te doyewu ko dara kon su ko defee loolu problème la léegi nag bàyyi mu ne lu tax nag léegi nit nekk xalifa yàlla wala maa kaana wala maa lam yakun li ruuxi makaan ba nga xamee ne ruuxu ruuxu nit ki amul barab tey gis nga fi ne nii sama jëmmu ji boo doon laajte fan mooy barabu barabu ruux gi luñ lay wax ah hmm? ruux gi mu ngi fépp amul barab bàyyi mu ne bi nga xam ne ruuxu amul barab am wala jiha amul côté bu mu nekkee asbaha xalifa anilaa léegi nag xëy na kon nekk xalifa yàlla imaginel waa lim def yàlla bàyyi neen loolay xalifa yàlla waa ji ruuxu la def yàlla bàyyi neen ruuxu mooy xalifa yàlla wa zalika ruuxul kawni siru muhammad kon ruuxu gim def yàlla moom loolu la bàyyi wax moo euh, ruu gi ñàkk gi ñàkk nekk am barab ci jëmu ji moo tax yàlla te amul barab mu ngi fépp moo tax mu ñu def ko muy kalifa yàlla te du te ñëpp sax de kenn rek lañ ci tànn wara bu ko yaxluqu ma yashaa wa yaxtaar léegi nag kon asba ci la xëy xalifatan anillah ci la xëy nekk xalifa yàlla amul barab amul makaan fallaahu yàlla laysa lahu makaanun wala jiha yàlla amul barab buñ naan fii ne denga dafa andak barab yëpp wa amul barab bo xamne fi la dekk yaw nga ne yalla fum dekk ñu ne la bayina ne amul barab yaw nga andi fi benen yalla bu am barab bu ko def yalla bi ñi jaamu denga kon lolu moy wedd Baay Ñas moo tax jëlal nga jàngale ko lii de momako ma yow ha ah? jamal jël ko nga jàngale ko rek nga leen ko boo koy liir sa taalibe yi bala dama liir ko rek nga jàngale ko kon fa laahu laysa lahu makkaan yàlla amul barab laysa qurbal makkaan jege yàlla du jege barab yow nga ne yow yàlla Dakar la dëkk wala jiha yàlla amul côté ñu naan ma nga penku dégg nga wala ma nga xarfu wala ma nga ca kaw ma nga suuf fa ay na maa tuwalu fa sama yow nga mën a dem caaxo dégg nga màggal sa juddu ne fii nga juddoo ku feer na am feerte nga pour pour pour foofu nekk sa barab yàlla amul barab ngay jugee di baagante diggante foofu ak Dakar yàlla amul barab kon su ko defee yàlla amul côté te boo jugee Dakar jublu Kaolack yaa ngi jublu côté wa ruuxu fil insaan ruuxu ci nit tamit kazaalika naka noonu amul barab amul côté mënuñu wax si loxo bi la ruuxu nekkee mënu wax ci côté ndeyjoor bi la nekkee wala côté caam wala ci gannaaw mu ngi fépp kon looloo tax nag léegi kon doomu aadama xëy nekk xalifa yàlla yaa ngi dégg kon bi ruuxihi aw bi jasadihi bal bi ruuxihi dégg nga kon du jëmm ji mooy xalifa yàlla bi waaye bi biir gi mooy ne yàlla bi xalifa boobu ne mooy enu amaana bi kon du amaana bi waaye dafay yenu amaana bi xalifa yàlla boobu mooy uutu xaqatu mamadiya xaqatu mamadiya du yàlla ba tey yàllaa nga ca gannaaw xaqatu mamadiya buñ ko mën a wax kon su ko defee da ngay gis na yàlla xaqatu mamadiya amaana bi xalifa yàlla mooy biir gi ak yaram bi yaram bi nag moom mooy am ndey ak baay yaa ngi dégg am ay doom dégg nga wax bi de foofu am na mbokk waaye lii xalifa yàlla moom amul doom amul ndey amul baay amul mbokk kon loolu su ko defee foofu la nekk na diw amul doom fekk xalifa yàlla bi lay wax jiha baatiniya bi lay wax kon su ko defee fa li haada laa yakunu xalifaanillah ilal insaan lii moo tax xalifa yàlla insaan rek moo koy nekk dégg nga kon lan mooy lan mooy xalifa yàlla bi ci insaan biir gi wala biti biir gi kon loolu mu ngi ci riyaadu tafsir ba yàlla bàyyi di firi walillaahi almashriq wal maghrib fa aynama tuulu fa sama waccu laa moo tax maa ngi koy yebal mu dem foofu mu def ko benn xadara spécialement firil ko jaamu yàlla yi buy paree rek daayira bi tas moo tax moom du moo tax moom ni may def ni ñemewu koo def dem dajale argument yi teg bind teg kayit bi di liir ñëpp di dégg nga yebal nit ñi ca barab sàngam mom qira iblis sa'id dafa ay daggil lay jàng lay dajale di dóor ben far ben di nax nit ñi kon su ko defé lolu mu nek lo xamne luñ baye xel la ba demé Jawahir mané Cheikh Tidiane inna inna allah wala inna lillah sifata sam'i wal basari wal kalam wal qudrat wal irada mu ne yàlla amna melokanu deg ak gis ak wax ak kartan ak namu-namu kullu sifatin min hadhihi bépp melo ci melo yi xiitu bi jameel wujudi fii aanin waahid ci benn seconde dafay peeg mboolem bindeefi déggam gi lépp lay dégg waaye ji nag balaa mu lay yóbbu ci yoon il faut nga dugal ko YouTube mu jënd connexion dugg YouTube wala ñu envoyé ko ko mu bës lien bi soo ko déglu bu dee yàlla nag moom fa ngay defee vidéo bi avant nga koy def ak ba nga koy programme la ngay génne sa xel lépp man man ko xam su ma yu yunabbi'ukum maa kuntum ta'maluun la ngeen doon def yëpp li ni ñi xamu sax man daa leen ko wax la tubla bu ñu ca demee lépp lu waaye nëbbu woon ba nëbbu ko mbindeef yàlla moo koy feeñal moo tax benn waay bu dof dégg naa ko mu toog tele naan fii ñu fi sàccee dara kan moo koy jàpp bu fi nit neewut ku fay jàpp moom daa fa ne daa raw rawu de dégg nga yàllaa ko suturaal ci àddina ba nit gisu ko waaye ñu demee àllaaxira yawma tubla saraa'ir yàlla na ko ba sàngam sàccoo nga de ne sutaal naa la ba kenn gisu la waaye ta nga sàccoon yaa ngi dégg kon loolu su ko defee ngay xam ne kii dem ci plateau bi waxewul xam-xam xam borom xam-xam demul jaahil moo dem maanaam sàcc daal bu fekkee ne sàcc daal bu fi nit newut dégg nga euh, kenn du ko jàpp yow ku la wax ne sàcc yëpp la ñu war a jàpp ci àddina ku wax ne bàkkaar yëpp lañu ñu war a weeru ci àddina kon dafa am loo ne ñàkk jàng diina moo koy indi dafa am yoo xam ne borom amu xel moo koy indi kon su ko defee loolu point la boo xam ne am solo nee na su ma amaatoo fàq barawu dégg nga su ma amaatoo fàq barawu léegi fan kan lañ ñan lañ gis ñuy suul ci xabru ñuy suul nit ci xabru yaa ngi dégg dégg nga nit lañ gis muy suul nit ci xabru waa léegi loolu kay waroon na laa waroon na laa dimbale nga xam ne kon nit du yàlla comme dem na bañ koy utal xabru bañ koy suul ah bu fekkee ne suma ma amaatoo yow rayal nit rek ñu xool yaa yàlla rayal nit ah rayal nit rek ñu xool rayal nit buñ boo rayee nit bañ dugalee ci kaso gi da xam ne doo yàlla hmm? waaye yàlla moo teralee doomu aadama muy dee ñu koy ñu koy suul ci xabru loolu defalu ko mala dégg nga da gis ci mbedd mi benn mbedd kenn du ko robi kenn ko gasal xabru kenn du ko defal dañ koy sànni fenn waaye nit nag yàlla moom moo ko indi ta ba la mu doon liir dégg nga dégg nga min ay shay'in xalaqa fan la yàlla bindee nit minut fatin xalaqahu loolu mooy jiitu ci aaya jëri denga le ku bind nit kooku alla si xalaqa xalaqal insaan min alaq kon dafa am loo xam ne dëgg-dëgg dégg nga maanaam ak seytaan rek loolu te loolu mooy dajaal ñëw di lëjal aaya di ko di ko lëntal pour nit ñi dégg nga mën a rikkiku ci yàlla jiñ gëmoon loolu du ñu bett kon nag doomu aadama yàlla déggam gi day dégg noonu mbindeef yëpp gisa noonu mbindeef yëpp waxandoon mbindeef yëpp kàttanam yi dafa peeg mbindeef yëpp ci benn moment namu na moom noonu moo tax lu xew rek yàlla la neex lu xew rek yàlla la neex yàlla ko dogal aywa Cheikh tiyan nee na laa yaxtalifu alayha ixtilaatul wujudi bi zawaati maanaam mbindeef yi ni seen jëmm yi di jaxasoo lu ñuy bëri bëri bëri bëri kenn ku nekk bu waxee buñ toogoon ci benn barab di waxandoor ñoom ñëpp yàlla dana dégg baat yëpp te dana xàmmee kenn ku nekk waxam li mbindee fi di bëri bëri ak ni ñuy tasaaroo ci àdduna bi ci même moment mu ngi gis ñëpp mu ngi wax ak ñëpp na mu ngi feeñ fépp namm na ma mu ngi feeñ fépp léegi nag bu fekkee ne moom bu toogee ci wetu taalibe yi léeg-léeg ni wax dara te mu ne ko loo wax dégg nga wala waxal ci kaw wala dégg ma li ngay wax kon nak lay nekkee yàlla Hmm? kon am nga dégg waaye taxul nga nekk yàlla te dégg dafa limité wax naa ko ci waxta euh, ci gannaaw aw bi alfaas yi léegi nga mboolem moo yi ci mbindeef yi biir wi yëpp yàlla dafay xàmmee kan moo wax benn bu nekk ko wax exemple fii ñu toog nii di waxtaan am na xale yu fo ci suuf yaa ngi dégg yaa ngi dégg kàddu yi mais xamoo kàddu gu nekk ban xale ko wax ah ba tey it gisoo leen instant yi pour nga gis ne il faut nga taxaw ci fenêtre bi xool kenn par kenn xamoo sa dooman ca wala sa doom newu ca kon loolu li muy tegte ne mooy nit ki du yàlla dégg nga aw bi xarakaat yi yëngatu yi am yëpp yàllaa ngi ràññee fay no yu may su kulla fardin min zaal yëngatu bu am rek baat bu am rek jëmm yëpp yàllaa ngi ràññee yëpp ala xaddati ku nekk ca frontière am yalla nga ragné tam yizan ak ragné go xam la laa yaxtalitu bi ghayri du jaxasoo muk la fi samii wala fi basarihi deg degam du jaxasoo gisam du jaxasoo waxam du jaxasoo katanam du jaxasoo namam du jaxasoo de nga xam-xamam du jaxasoo de nga amul ben bu ci wala fi sifat min baqi sifat bu mbollem melokan yi di jeex kon su ko defé nit du yalla lolu point la bo xam ne point la bu ci Cheikh Tidiane ak Baye waye nak waji faaw mu outé ñi pour wa faydu bi xam du talé Baye du Tidiane du julit naka nonu Cheikh ibrahim radhiyallahu anhu waxna né na la amad al Mustafa sallallahu alayhi wasallam bi jami' sifati sifaati al uluhiyya yonent bi sallallahu alayhi wasallam tebuna yàlla tebuna na bi sallallahu alayhi wasallam mboolem melami bam dess mu des ga bam dess des yàllaam ga fa nabi sallallahu alayhi wasallam laysa bi ilahi yonent bi du yàlla wax ji saraata wax bu leer la kon nak nit bu ñewé na la yonent mo yàlla nga ne ko bàyyi ne ne yonent bu du yàlla moo indi beneen wax boo xam ne wax bi daal eh, wax bi eh, maanaam moom moo ci déggee ne bàyyi loo daa wax ne yonent bi yàlla mais da nga naan ko léegi bàyyi dafay wax di weddi boppam wala ah bàyyi dafay wax di weddi boppam walla de kon loo bëgg a wax da ngaa bëgg wax bàyyi matut kon wax ji seet si beneen dégg-dégg bu dëppoog alquran addis kon loolu su ko defee bàyyi ne ne yàlla joxoon lépp yonentu ba mu des yàlla am nga wax na ko ci bind wax na ko ci kaset fa nabi sallallahu alayhi wasallam laysa bi ilaa yonent bi du ku ñuy jaamu du yàlla yaa ngi dégg du yàlla moo ta duñ ko jaamu dégg nga fa Cheikh Tidiane bi nabi Cheikh Tidiane du nabi Cheikh du yonent bi dégg kon yàlla du yonentu yonentu du Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane du yonentu dégg naa benn waay bu dof maan bàyyi bàyyi bàyyi mooy yàlla mooy yonentu mooy Cheikh Tidiane mooy moom loolu tamit juum-juum la bàyyi waxul fenn ne ma yàlla kenn du la ko andil bàyyi bu dee wa inni makkas wa inni makkas loolu amu fa miata alfi sana dégg naa benn waaye nag sonn ci wa inni makkasu lool waaye wa inni makkasu xam naa dinaa ñëw danaa ko firi ci benn vidéo mu jeex benn yoon dégg nga léegi nag kon bàyyi waxul maa yàlla bàyyi du yàlla tam danaa indi fii fu bàyyi waxee ne du ma yàlla bàyyi du yàlla du yontu Cheikh Tidiane yenentu bi du yàlla Cheikh Tidiane du yonentu bi kenn ku nekk ka nga doon ka ka nga doon moo tax mu nekk ay ñeent kon su ko defee mbokk yi ñu bàyyi xel loolu cheikh ti andu yontu wa kulu maada kulu seen maada nubooti lépp loo xam ne du du nubu am gu mu yontu salaay salama amadaw bil Mustafa wa jaalo fi àq yi yonentu bi salaay salama tëbb na ko def ko ci àq yi xam loolu waxu bàyyi la waaye taxul cheikh tiyaan nekk yonentu yonentu def jox na ko lépp ba mu des nubu am gu mais taxul mu nekk yonentu yàlla yi jox na lépp yaa yonentu ba mu des yàllaam nga taxu moo tax yonentu mënta nekk yàlla ba mu des gii nag moom la gars yi am problème naka la yàlla di joxe yonent bi lépp yàlla am nga léegi yàlla gi lañ dur gisati parce que amuñu fatu amuñu sëriñ moo tax pour ñu xam ko moom il faut ñu ñëw ci adara bi te loolu dafa yaatu ci faydu bi waaw bàyyi wax ne ci kaset ci benn waxtaan ci benn lettre lettre boobu nga xam ne ma ngay tontu sëtu Cheikh Tidiane boobu bi doon jéem a yàq deru bàyyi ci Mauritanie ba bàyyi benn lettre misri mooy lettre fecc boobu boo demee bàyyi nga si wax si biir lettre ne ko ne ko mu nahnu muwahhiduna ñun dañuy wéetal yàlla dañuy tawhidal yàlla tawhid nag waxoon naa la ci bàyyi wax na ci tafsir mooy rabbil alamin mooy da ngay nangu ne mbindeef nga yàlla mooy sa borom te mooy borom mbindeef mu dul yow lii mooy tawhid tawhidu lii mooy tawhid léegi nag yàlla moomu nga jublu ko mooy tawhidu tarik yàlla moomu nga dem ba àgg ci moom ñàkk mu des fi nga xam ne yaay dee moom mooy dund كل من عليها فاني ويقع yabqa ربك يا فلم falam الى الله يا يا نياك بور وانا يا مانك yaa manqué moom mu mat moom mu mat mi mu neefi kooku mooy tawit haqiqa يا boo fa demee يا mi ñàkk yow yow lañ moom yàlla moom moom ñu dund moom moom ñu dee dégg nga su ko defee yàlla ne fa kooku mooy tawit haqiqa tawidu نفي nag mooy nga nga koy gis mu lay gis yaral khalq wal haqq fi anin wahid deng nga kooku mooy tawit dàq ñeenti tawit yi mo am amu ben nak bo xamne nit ki dana fi nekk yalla deng fe da ngay nangu yalla la mom waye do ko gis mooy maxjub bi leg nga jublu yalla jël tariqa pour bëgg a ci yalla moy mahjub bëgg a ci yalla koko jullu way bu am yalla moy as-samadu ci mom moy kam jublu comme minu muxtasidun léegi nag bo demee ba ci yalla nga ñak yalla des fi kullu shayna halifun ila wajhahu nga séré ko yow dégg nga kullu man alayhaa wala lam yabqa ila allah la shay xayruhu soo dee mbindeef fi dàq nga xam ne mbindeef di ñàkk ñooñ ñooy mbindeef yi ñoom ñooy dee ñoom ñooy ñàkk kon yàlla mi fi ne te du mos a ñàkk kooku kooku mooy yàlla te yàlla mooy borom ñi dee ak ñi dund ndax moo bind dee ak dund ko defee ne foofu dégg nga benn point la nga ñëwaat nag léegi ci beneen point boo xam ne da nga yàlla ne fi nga yàlla moom la dégg nga mbindeef yi ne fi waaye ngay gis mbindeef yi di gis yàlla kooku mooy tawidul aarifina dégg nga dinaa ko indi ci beneen waxtaan pour wane na gars yi duñu aarif ndax ñoom newuñ fi yàlla ne fi dégg naa mbokk moom caam muy wax ne ku la wax ne dañ faa jugee yow soo fa jugewul kay mooy génn nga pay bi man fan yee walam yeq foofu abtalun dagg nañ la ci yàlla kon ah mbooloo mu dajee te ñoom ñoom ñu dagg leen ci yàlla dégg nga yow waroo sax bokk ci débat bi bu fekkee jógee fa kon looy waxtaane te bàyyi ne ne ku fa Cheikh Tidiane ku fa ne doo wax doo yëngatu doo def dara looy waxtaane bàyyi layal sa sëriñ kon dañ laa dagg ci yàlla moo tax nga koy wax te bàyyi nee na fànnaaw benn fan doy na ci yow ba nga fànnaaw léegi ñaata at la nga naan ku la wax dañ faa jugee loolu daa nekk lay ndax Cheikh Tidiane wax ne duñ fa jugee wala Baye wax ne duñ fa jugee loolu moo doon lay waaye ku la wax ne ñun dañ faa jugee yow léegi boo fa jugeewul luy sa lay hmm? kon bàyyi nee na fànnaaw boo boo fànnaaw day romb ci yow war a jaa nga dellu ka annahu ba mel ni Mahjub nan lay melee ni Mahjub Mahjub dafay ne yàlla ne fi melokaan boobu ngay jël waaye lu lay utee Mahjub mooy dang fi ne yàlla nefi ngay gis yàlla te Mahjub bi di gis yàlla kon moo tax mat gu niroog wàññeeku la mat gu niroog wàññeeku luy wàññeeku mooy nekk gi fi newoon yàlla ne te gisoo ko loolu soo ñu fi neyaate yàlla ne loolu day niroo yaa ngi dégg waaye mat la lu tax muy mat mooy dang fi ne yàlla nefi nga koy gis loolu tax nag taalibe yu bëri am problème del del siaat waaye nag lu ko waral mooy siraatal fanaa lañu xam waaye xamuñ siraatal baqaa yoon bi ngay jaar ba fanaaw gaa yi xam nañ ko bu fekkee sax danañ fanaaw waaye yoon bi ngay jaar ba am baqaaw nag loolu la gaay yi xamuñ moo tax ñu bañ a dëpp nee na bañ a dëpp te yonent bi bu dëpp toon julli du am dégg nga saral Moustapha lay nan wa waafa bàyyi na suma ma waafa xam la sa baay Cheikh Tidiane it du fextu mu dëppaat dégg nga bàyyi noonu kon problème am na kon gaa yi royuñ ci bàyyi xaw ma ku ñuy roy waaye du bàyyi fa nahnu muwahhiduna rabbuna allah suñ borom ki ñu mom nek suñ borom mo yalla baye wax kon est ce que bàyyi jàpp ne bopum yalla wa imamuna rasulullah suñ imam de nga mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu islam moo ma islam wala nahbudu duñ ko jam ah xanaa du yalla wala nahbudu duñ ko jam waa baye ne duñ jaamu yonentu yow nga ne yonentu bi lañuy kon est ce que kii wax ne tegg len ma tegg baye buñ la tegee teg bàyyi gàcce rek ngay am ah mu fi waxee ne yonent nuuhu dégg nga nuuhu du xalifa yàlla ibrahima du xalifa moussa du xalifa yàlla ba ne teg leen ma teg bàyyi ba ma tegee bàyyi teg ko nu mu def ñëwaat na ci wax ji ñëwaatu ci léegi nag nee na euh, yonent bi nañ jaamu nañ teg nañ ko teg mu teg bàyyi rek mu ne duñ jaamu yonent wa waasitatuna fi tariqatina cheikh ahmad tidiane xalifatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam suñu intermédiaire ci tarixa bi ndax tarixa bi ci yonent la bàyyee ko ñëw Cheikh Tidiane kon Cheikh Tidiane mooy waasita bi kon mooy xalifa yonent bi wala ndax bu duñ ko jaamu parce que du yàlla dégg nga kon su ko defee ba tey boo ñëwee ci misri mi nga xam ne ñoom fonk nañ ko ñu déglu lu misri wax li xadatin al gara sirun bi raba qadimun laha min xaysu kaana wala qudba wa ma nahmaduha bi sirri wa ruuxi sarmada wa nahmaduwaa jisman wa nahmaduwaa qalban nee na ci tënk rek ñu ngi sant xadara boobu nga xam ne dégg nga xadara bu weex tàll bu set bi bu sell bi xadara boobu am na mboot moo xam ne mboot moo xam ne raba yar na xadimun bakki néeg laxaa bakki xadara ba miraay su kaanat dégg nga fa ba nga xamee na xadara ba fam nekkee xadara ba te fekk xut bu amagul maanaam du fii yëpp dégg nga Euh, fa la yare bakki néegam boobu ci ësal wan ahmaduha ñu ngi sant hadara bi siri suñ siru bu fekkoon siru bi yàlla la du mën a wax loolu kon siru bi du yàlla wala siru jaam bi du yàlla kooku siru xalqu la wa ruuxu ak ruux ñu ngi sant yàlla suñu ruuxu sarmadan ba faw wan ahmaduha jisman ñu ngi sant yàlla suñu jëmm wan ahmaduha xal ba ñu ngi sant yàlla suñu xol ñu ngi santaal dara bi suñu kol wa in kaana anal baadu qad sadda xaairan fa naxnu lana salma wa naxnu lana laha xarba waaye du loolu laa soxla tey walam na'tamid illa ala llaahi waxda ñun duñ sukkandiku lu du ci yàlla moom kese duñ sukkandiku ci kenn ku du ci yàlla walam naqis walam nataqis illa ila rabbina al duñ jàpp lu dul yàlla mi nga xam ne moo jege mbindeef bu ne walam nattaqis xayra rasuli mu sharia ñun duñ jàpp kenn muy indi sharia ku mooy yonent rek mooy sharia la walam nattaqis cheikhan nabiyan wala rabba nee na Cheikh Tidiane duñ ko jàppe yonent duñ ko jàppee yàlla bis rey wax de dégg nga li annana abidul xaqi la nahbudu siwa wa man kaana abdul xaqi la yaxtasil oqba misi nee na ñun jaamu yàlla lañ duñ jaamu ku mooy yàlla ku jàkk jaam ku nekk jaamam yàlla doo ragal mujj gu ñaaw kon ala kulli loolu misri wax na ko ba tey may nettali indi waxtaan boo xam ne bàyyi koy waxtaan ak benn américain ci ci avion bàyyi ne kalamani américain yu fi tairatin wa ana musaafir fa qaala mu ne américain bi daf dafa wax ak man fekk ñu ngi ci avion bi dégg nga may tukki mu ne waaw mal farqu baynaa wa baynakum lan moo ñu différence ñun ak yéen ndax nu masihiyuna masihiyuna wa antum na ñun eh, masihu chrétien lañ yéen julli ngeen lan moo ñuy différence nahnu naabudu Isa wa antum taabuduna Muhammad ñun Isa la ñuy jaamu yéen ngeen di jaamu Muhammad mal farqu baynana kon lan mooy suñ différence fa qultu lahu haza huwa al farqu baynana ma ne ko lii mooy suñ farqu nag loolu lii mooy suñ différence dégg nga nax nu laa nax bu muhammadan ñun jaamuñu muhammad de ya ya foog ya jàpp ne muhammad lañ jaam waaye ñun jaamuñu muhammad yéen na ngeen di jaamu Iisaa kon lii mooy suñ far lii mooy suñ différence farabuna warabu muhammad waahidan suñ borom ak borom muhammad benn la ñun ak muhammad ñoo bokk benn borom muhammad nag muhammad imaamu naa suñu imaam la fi ubudat si njaam gi moo ñu nekk ñàkk nekk jaam te mooy suñu imaam si njaam gi wa imaamu naa fi ba ibadati te mooy ki nga ne mooy suñu njiit ci jaamu gi moo tax yonent bi lañ gis muy jaamu ñuy jaamu waaye nag du suñ borom ñu nag moom ñoo bokk benn borom xolal lii waxu baay la yow nga ne baay ci yow la wàcc xanaa téere baay dañu wàccaalagut ah xanaa lettre bi wàccaagut wàccut ci yow dégg nga kon kuy fen dégg nga nu gën a mbir yi gën a avancé rek mu gën a leer na day fen kon wa imaamuna fi taatilaas yontu mooy suñu imaam ci topp yàlla mooy ci imaam ci jaamu yàlla walakin na wante abdun jaam la ka misli naa comme ñun jaam la comme ñun tabaraka wa taala fa lihaza tëji diina naa yu sama islam moo tax suñ diina bi tudd islam laa yu sama muhammadiyan tuddul muhammadiyan kama tasumuna antum diinakum bil masiya comme nu ngi tuddee seen diina seen diina yi islam la tudd tuddul tudd Muhammad yéen seen diine gi ngeentu tuddee ko Isa kon nag ala kulli haalin nahnu wa Muhammad fiihi sawa ñun nag ci diine ji ñoo Muhammad ñoo ci yem lim ci nekk wax nañu ko mooy mooy imaam ci njaam moo ñu nekk nekk jaam mooy si imaam ci jaam gi mooy ci imaam ci topp yàlla gi kon yenentu lañu gis muy jaamu yàlla ñuy jaamu yàlla loolu ki ko wax tey mooy jullit bi gën a riir ci jullit ñi moo wax wax ji kon su bàyyi waxee ne aj xelu taalibin bàyyi li mu wax faaw nga gis ko la bàyyi waxoon nag tey ci fayru bi ñu ñëw pare pour gis ko waaye ñeneen ñi parewuñ koo gis waaw léegi nag lu jàqloo bàyyi tiital bàyyi yow nga war koo gis xeexal bàyyi nga toog di xore kon loolu problème la kon nag américain bi nag ko ah yéen de est-ce que am na ci Amérique koo xam ne moom mooy jottali seen diine ji pour nit ñi xam ko parce que lii war nañ koo jottali jàngale ko parce que moom mu nga nekk Amérique foog ne julli ñi yonent bi la ñuy kon war naa am ku jàngale diine ji dégg nga yàlla dogal na ku mel ni imaam Hassan Cissé rahimahullah dem na Amérique liggéey na ci liggéey bu rëy yal na yàlla fay ko fay ñu dégg nga ci mataanallah bi umrihi rahim naka noonu bàyyi wax na isa qulta abdallah sayyidu xalqi fa qul fiihi maa qad shi'ta wala tatasil itra bàyyi mu ne yonent bi gannaaw boo ko waxee jaama bi yàlla la ba pare nekk sangi mbindeefi dégg naa ko muy wax ne misri nee na bàyyi mooy yàlla mooy jaam bi ra'aytu ko yowmal jami abdan loolu firiwul loolu de sayid bàyyi mooy sang bi mooy sang mbindeef yi sayidul wax ñu ko foo waaf bàyyi mooy sang mbindeef nekk sang sayid fu ñu ko fi teg rek yàlla lay firi déedéet a sayidu huwa laa am na ana sayidu wala du aadama am na moom na comme amu xam-xam dégg nga te du laajte yaa ngi dégg lu woykat wax Ibou Diouf lu wax ko xamut ah non ku xamut da ngaa war a laaj ko xam ba mu wax la gumba bu gisul te du laajte fi nee ni fi nee ni yii yëpp ay daanu ci ñag rek la ku daanu ci ñag na luñ la war a def moo tax faaw mu yëkkati ko ah il faut mu ñu sauver ko kon ñun ñoo ñëw pour sauver ko ci jafe-jafe bi mu nekk sauver tamit gaa yi ànd ak yëpp gannaaw boo waxee ne yonent bi abdullah sayidul xalqihi bi jaay man saada kullal xalqi fi azalin li takfi anniya kaydal qasmi wal kon da ngay gis ne moom mooy sang mbindeef yëpp yaa ngi dégg kon misi nee na bàyyi mooy sang mbindee fi bàyyi mooy jaamab yàlla raaytuka yowmal jami abdan wa sayidan kama kunta qablal qabli feneen kama kunta qablal xalqi lillaahi saajidan kon doo yàlla waaye da nga sujootal yàlla xam nga ne lii rek su ko firi woon du am problème bi kon li ñuy wax ñun ne xamul yàlla xamul waxu bàyyi dégg nga lu leer ci lañ ko teg bàyyi mu ne gannaaw boo waxee yontu bi jaamu yàlla mooy sang mbindeef lii benn ébaat du ko weddi hmm? yontu bi jaamu yàlla mooy sang mbindeef benn ébaat du weddi dégg boo waxee ana sayyidu bu la waxee wala di aadama nga ne commencé naak ila rahmatal alamin alamin ku ci dugul ah ah kon doomu aadama rek waaye mbindeef yëpp mooy seen sang xataa malaaka yi dégg kon su ko defee fa ma daaw nasaara ca xat saaba xalliyaan koo xul fii ma chita bila shek wala waxamin li ni wax ne Isa mooy yàlla yow bu ko wax mukk yontu yàlla Muhammad waaye léegi suñuy ay nit ñëwee na ne yontu yàlla Muhammad mooy yàlla nag kon la bàyyi tere woon lañ def hmm? kon yontu bi wax na ne bu leen ëppal ci man ba ne ba comme ni nasaraan yi ëppale woon mooy fa ma daaw nasaara man jaamab yàlla laa yu ndawam laa Isa lu waxoon inna abdullah ataani kitaab wa jaala ni mooy man jaamam yàlla la waaye ndaw ak yàlla la wa jaala ni nabiya kon su ko defee loolu tamit mu ngi ci xat saaba wéyale boo xam ne danañ koy caadara ba waaye dundewuñ ko doxewuñ ko moo tax dajaal ku jara moytu la li gaa yi yàlla yi def yëpp da koy jéem a def te fekk du jullit ah ku gën a mën a nekk naxaatekat bukki dëgg-dëgg mooy dajaal bukki bu sàngoo daru bëy naka noonu boo demee ci alquran yontu bi nee na innama innama umirtu an abuda rabba hadihi albalda allati haramaha allah wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al muslimin man liñ ma digal mooy ma jaamu borom réew borom dëkk bii di màkka waaye ñu digal ma it ma bokk ci jullit yi lijaasa yi am ci faydu bi yëpp ak tariqa bi yëpp dañ ci indi aaya bi wa man ahsanu qawlan mimman daa ilallaahi wa amila saalihan wa qaala innani min al muslimin kon muqaddam moom li gën a kawe mooy nga jëf oote ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne yow ci julli ñi nga bokk bàyyi ñes radiallahu anhu nee na ana walilahi alhamdu abdul xadrati ilaaya maa ngi sant yàlla man jaamab xadara yàlla bi laa duma yàlla wax na tamit ne taalibe yi ku bëgg a nekk jaamab xadara yàlla bi dégg nga jaam boo xam ne dangaa bëgg a nekk jaamab xadara yàlla bi xaqatan zahiran wa baatinan fi dunia wala aqbala awul ëbat dégg nga an yanta bi da ngay yeewu kon fii liñ fi ut ci faydu mooy nekk jaamab yàlla dëgg dox ful iman fi xulóobi naas nga am bu mat nekk ku am iman bu nekk nga jaamab yàlla dëgg-dëgg bàyyi mu ne man jaamab yàlla bi laa dëgg-dëgg te képp ku ñëwee ci man bëgg a nekk jaamab yàlla dëgg-dëgg déglu ma kon ñun kan la roy roy ci kële jiite ki laay omat taalibe day roy ci sëriñam kon su ko defee bàyyi jaamu yàlla la taalibe yi li muy xaar ci ñoom mooy mu nekk ja ñu nekk jaamab yàlla واحنا كفنا ان صلى ما بينكم وبين ربكم فقد بلغتم الغايه في اكرامي والا فانا لا اخذ لي في شيء خير مولا يكون لي لا يكون لا يكون لا لكم وكونوا في لا يكون لا فيكم دينغا من سو فيك جوبو نين اك سين بروم كون نيوم فو بوالو ني نيك اي اي عبد اي جام دينغا سو نين كو ديفه رك جون نين دايتالو ترالما والا بولول امو نك لو نين بو نين توغون ديما يوخو نان باي في من تي ادنا الاخره سوخلوما لو نين ما مانا ديفالي سوخلوما dégg nga man soxla mu dara lu mooy yàlla sama borom sama borom ngeen jubóog moom loolu rek waaye solo te lii mooy xalifa yàlla piir xalifa yàlla piir bu ñëwee pour nit ñi jubóog ka ko yónni mooy yitteem bi gën a mag te mooy yitteem bu dul loolu amul beneen soxla naka noonu ci kasatu ziyaara ziyaara olof laa wax de bàyyi na laqad ataytum li ziyaara waaye ziyaara laysa lii ñëw ngeen fu ziyaara ma waaye ziyaara bi moomoo ko li anni aalamu annakum ilallaahi saayibun ndax xam naa ne yéen ci yàllaa leen tax a jóg man taxuma leen a jóg lastu bi ilaahin man duma yàlla walakin tatlubuuna laa da ngeen di sàkku yàlla min nii ci man te ku ne xam ne yàlla boo koy sàkku ci xalifaam ngay dem kon ziyaara bi ñëw leen ci man da ngeen ñëw ci man pour yàlla ngir yàlla kon ziyaara bi moomu ko yàllaa ko moom wala déet kon su ko defee kon li koy tegtale bàyyi mu ne ñëw ngeen fi ci at mi passé di ma ziyaara te man néew ma fi su doon yàlla du ne ah ngeen ñëwaat at ba ca topp di ziyaara fekku leen ma fa at ma ca topp fekku ma fa bu taxutoon ak yàlla kon du ngeen ñëw dégg nga na at yee na ngeen fa fekkee woon yàlla ca at yee passé yàlla nangul leen nga xam ne yàlla rek a tax su sama jëmu ji neewu ma fi ngeen ñëw kon loolu day tegte ne yàlla rek a tax wa jaali fi maxi wa machali kon yal ko yàlla nangoo at mii ngeen xam ne fekk ngeen ma fi kon loolu lu muy tegtale yàlla du fàddu te ñetti at yi passé yëpp ana xaa ibun maa ngi woon ci yëngatu yi léegi at mi ana xaadir yàlla nag maa ko naa xaayibin kon bàyyi nee na du yàlla léegi nag kon su ko defee mbokk yi da gis ne kon seen taxawaay dëgërut yal nañu yàlla dimbale yal nañu yàlla gindi yal nañu yàlla maye tawfiq ci diina wa billa ila billah alayhi tawakkaltu wa ilay unib kon su ko defee jotaayi tey bi foofu lañ koy tënk ba beneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.